mooy yow kan laa gisee eh demal demal demal nga fooy ati de. mi tollu bàyyi bu warul génnoo bu génn dellu ginnaaw fi réew mi tollu bàyyi eh, eh, eh, man la taxawal xamee woo kenn dellu ginnaaw ci réew mi tollu bàyyi ko warul kennoo yow bu maa ngi leen xaar ma ah ngay dem lu tax nga dem garaaw ma waxoon ma taxaw boobu ma ne la gisati fii bu ma loo ko wax dama kaa ma la de yow de waxu leen waxu waxu la dara dara waxu leen waxu leen ci dara. wax nga ko wax nga ko ko. déedéet. Mhm. loolu bu mu jëm kaw de loolu moom mu jëm kaw waaw léegi euh, Faatiya gi nga ni nga ni tàmbali. alxam bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaani rahiim maaliki yawmiddiin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim tonton Samb. Mhm. yoo xam nga ay tukkuleer ngeen jàng ngeen. waaw léegi man damaa bëggoon xam faratay jàpp ak julli quoi parce que man daa maîtriser wu ma ko noonu trop trop. Mhm. surtout jàpp bi. Ah, ah, ah. julli. fas yéene julli. nga kabar nga wax allahu akbar. Mhm. nga nga nga nga wax Faatiya. nga wax saar. nga nga nga nga rukkoo. rukkoo. moo nga jóg nga nga nga nga nga. su joot su joot. Mhm. déggul wolof moo tax su joot. Mhm. mu nga su jootee pare. Mhm. nga def taayaat. taayaat pare nga ne asalaamaaleykum. julli mu ngi noonu. jàpp julli xam nga ne yow yomb na jàngale wuñu la jàpp sa papa jàngal na la jàpp taay. jàpp da koy fas yéene loo gis da nga koy fas yéene sa xol damay fas yéene jàpp. ah di jël raxas sa loxo yi ba sa tëkk jara yi. ñetti yoon. nga raxas sa gémmiñ commencé ko sa ndeyjoor bi mm. ñetti yoon mm. Mm. ah nga daal sërëx ndiku ah maanaam sa bakkan bi ñetti yoon sëlmu sa kanam yéen góor ñi am karaw da ngay yëngal fii bu baax ba mu dugg ñetti yoon ah nga raxas nag sa loxo bii si ndeyjoor bi ngay commencé ba si conc bi ñetti yoon def bii ba si conc bi ñetti yoon daal di masak sa bopp commencé ko nii def ñetti yoon def nii dem ale aller retour ah ñetti yoon nga raxas nopp yi ne nag da ngay dugal sa baaraam yi mag yi nga dugal ba si biir daal di def si ginnaaw raxas Mhm. nga jël sa loxo bi jël sa sa sa nii def nii. mooy nga baaraam bii nga raxas raxas raxas ba mu ñëw fii ñetti yoon nga def nii. nga daal di saafaan nag. affaire ah, loolu lañ la wax bu fàtte leer na waaw ngi nii mënul fàtte. Oh. mbarod <laughs> mënul fàtte gaari Maodo. xaw ma ko bett muy julli timis. gaari Maodo. camion siège noonu. na ngeen def Dieng Mbada. ah Mbada gis nga ko de. xanaa koo bee ko laaj. toolu bee ko laaj. Mbada. yaa ngi ci nii ni paat paat. waxaale man daal sama faatee ji daal moo siiw nii. mi ci eh, koñ beeg. mbi mbii mi. sama xarit yeeg. sama jarbaat bu baax bi seex seex fex yi laa toog mu ma koy mu naan ma na fexe bul ma gàcceel ak ah, yéen daal yéen ñaar ñi yéen de xam naa bu ngeen ma xamaloon leneen lu dul ñàkk mën faatiya ma yaatu njaay dégg wax kam naa la bu baax hmm. faatiya kam naan dara ci yow ah, ndax yow àll ba nga juddoo gone daara mi ah, faatiya wanaat problème kam naan man wóoru naa yow daal sàmm damaa ñëw noon pour seede seede mu tari moo tax ma ñëw mu tari yow yàlla nga ala wona allah xut bu samaan nga duma xut bu samaan Serigne Touba astafurlah sëñ yàlla duma yàlla duma rasulillah yamal sa place amal kono komi julli komi julɗo nag ma sutub ñang komi julɗo man min ko julli nag ma sutub ñang yow maam Fadou ah, maam maam maam nga duma ñoom mukk maam Jaara Buso nga déedéet kii jullit waaye eh, kese yàlla laa warloo bu ma neexee tagil ko faatee bu ma neexee Guèye kanaa yow da nga amul Fatiha wax ji yëpp kanaa da nga amul Fatiha ma ne Fatiha ak moom mënul Fatiha seen yoon nekku ci kon pourquoi la wiiri wiiri jaadi naa pourquoi amul la wiiri wiiri jaadi naa ah, waaye yéen bu ma taree Fatiha gu sell bu ci mu toll nii Guèye weranti kuukaan kay ku tekki tubay ma naari ma naari naari yaa mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim eh, eh. alhamdulillahi rabbil alamin eh, arrahmani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraatal mustaqim siraatal mustaqim siraatal lazi an'amta alayhim hayril maxduubi alayhim wala daalin amin barke rek oh! oh, woni gaari mawɗi waaw Papa Ndiaye fan nga fan nga teg ne oh! ah, woni gaari mawɗi kii baal sa nar yi ngay akbar bisimilahi furnague bisimilahi hirnague bisimilahi rew bisimilah worgo bisimilah gulaar bisimilah galak bisimilah makko bisimilah mbaɗin aan woni ngaari cheikh dal cheikh ay way cheikh jarama e mbayi len ndoggu li eh, ah, ah, ah, yow murumi damay mbayi ndoggu li damay ay ki yen won ma yow murumi ay yow gis nga gis nga da ngay jàng dëkk papa Ndiaye nag da nga mën a wax la rappelé eh Ndiaye yaay raw bu baloo météo ah papa Ndiaye yow kër gi nag kër gi yow dama laa mënul dara yàlla mënulu la dara tëtëm yàlla sax danaa sax. vraiment man jox ma soow Ndiaye jox ma soow boobu. jox ma dolli ma damay naan. jox ma dolli ma. damay. gis nga bëgg. toos dama la koy xëpp mais toos maa def nii def nii yéen. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim allahumma laka wa bika aman wa ala sax fi maa xaddamte wa maa aqam bismillah dog jot na ci sama bopp man nii. ak ci Sénégal ak ñi dul tuumalaate ak ñi dul sosolaate bëgg tiyaaba ak li ko wër alhamdulilah. totam croissant. Eh, la ilaha illallah totam croissant eh, totam croissant bi bu ñëwaatee bu ma la rappelé totam croissant bi. ñëwal totam croissant ñëwal. Samba toogal Samba toogal. non kii croissant yi day ndox xam nga mel ni meloon na ci ñëwal totam croissant. totam croissant yow croissant la ci tu. kii a woni bondu ba la boy. aan woni bondu aan woni wullundu. aan woni wullundu. kii. rek nga nekk dëkk ba gundo aɗa andi guno mbuttu